Baye Omar Sylla mi nga xam ni mooy jël baa dem Sëriñ Abdou Samad balaa waxtaan balaa yow waxtaan wi gën a xat wala jotaay bi gën di yàgg Sëriñ Abdou Samad wax na ne mi ngi fay jamono ci dëkk bu ñuy wax Darou Sam atum 1918 waajur mu jigéen mi ngi tudd mi ngi tudd Soxna Saynabu Jóob bàyyi ko woon Jolof soo nga koy dugg joo moom mu ci wajur Seex Samat wax na ne ku fi mu sa Amadou Sam bàyyi woon na ñi nga xam ne bu daan dem njëriñ daan àndal wax na ne ku Sëriñ Tuubaa la woon moom soxna Seynabou Jóob ba benn bis jox na ko mbubb ak dàll te wax na ne bis bi nga xam ne la fi bàyyi koo ban koy denc dàll ba ko Sëriñ Tuubaa joxoon dañ koo tolal ak muma nga xam ne kon kooku sëñ Tuubaa bàyyi na ko xel loolu moom soxna Seynabu Jóob kooku nu mooy waajur sëñ Abdou Samad mi nga xam ni moom la dara jàlle bi bii tey ñu war koo waxtaan lenn ci ay jikkoom sëñ ngi jàngee alxuraan ci dëkk bu ñuy wax Kalsaan Dóob kan moo ko jàngal alxuraan sëriñ Mahamadou Lamine Gueye fa la jàngee alxuraan ba mokkale fa alxuraan ba bind kaamil jàng fa ay yi xam-xam yu tax doog faa jóge nag bàyyi ko fa dem sëñ Basiru bi mu jógee sëñ Basiru nag wax na ni la doogu ñëw Daaru Jóob am na ñu jaar na tamit ci sëñ sëñ am sa doom sëñ Abdou Samad Tuubaa bi mu ñëwee la doo ko def tournée bu yaatam boobu daan gë daan liggéey ak di xeetu gëstu xam-xamam boobu nga xam ne moom déewut nee na jenn jamono jamono ju nekk rek moom Cheikh Abdou Samad mi ngi yëngu ci yëngu loo xam si ni loolu daf koy may ngërëmul suñu moom Cheikh Abdou moomu nekkal ko maanu nekkal ko ragal yàlla suñu borom tabaraka wa taala nekkal koo xam ni ku am fulla ndax benn bis suñu ma sàmm Diop sax wax na ni mas naa woo suñu ma suñu Abdou Samad ak suñu Basiru Diop ak suñu Abdou Jamil ak sëñ Mourtada Diop ni leen lii nekk ci sa poos bi sama loxo bii ci biir bool bi su ma ku ma diwoo nga ni Diop ma jox la ko wax na ne bi woo sëñ Basiirou sëñ Abdou comme ni woo ma ni Diop bi mu agsee ci sëñ Abdou Samad da koo woo mu ne ko moom Abdou Samad loxo bu ne ci biir xam ma la ca nekk maa wuy damaa xam la ca muy ku nite muy koo xam ne ku am ful la ci muy koo xam ni ku daan wéet la ak boromam daawut faral da jaxasoo nit ñi ku fonkan alxuraan la moom Cheikh Abdou Samad moom muy koo xam ni ku daan dëgg di liggéeyal aw ñaxam di ko dundee Cheikh Abdou Samad muy jëmu joo xam ni jëmu du ragal yàlla la ndax benn bis mas naa génn ci tool yi yorootaam bi jaar ci benn tool borom tool ba kër baa kenn faa la dëkk da koo wóolu ba mu ñëw mu ni ko diw sa tool ba jaar naa fa te fekkan dinoo digaloo ay tool mu jël dara jox ko baalam ak mbokk yi seetal googu ragal yàlla seetu samat mu jëmm joo xam ne li mu yor Seexul Xadiim moo ko moom benn bis mas naa yor ñaari fas ci kër gi moom lay liggéeyee jël ko jébbali ko Serigne Saliou Mbacké wuti mbaam kenn ku ne xam na ni kon kooku la sëñ Touba waxoon ne sëñ Massamba Sam lante noor la waaye da xam ne man man sëñ Touba dan man dan laa du ma diw du ma diw dinaa la dencal sa diw gi ba ëllëg fa diw di benn man la Seexul Xadim sa diw gaa ngi nii sëñ ma sa seebu saman nag ku mën a doxe addiye la waaye nekkan ku dëddu adduna foo ko masaan fekk mu toog daf daan lal basangi toog ci suuf foo ko masaan fekkul ëpp ci jotaayam basangi day lal basangi waaye suuf suuf lay toog nekkan ku woyof koy waaye nekkan koo xam ni ku bàyyi wen xel waa daar jóob la ndawul daar jóob yi bis bii tey wax nan ni ba accès bii tey ginnaaw yàlla Cheikh Abdou Samad te ban ngay sos moo leen ko tuddee woon ñaanalal leen ja kon ku bëgg ndaw yi Daaru Jóob la moom Cheikh kon bu waa Daaru Jóob jëlee bis dara kon dana war a xam ni def nan war a def def nan lu war a def ndax Cheikh Abdou Samad ku Jóob la Cheikh Abdou Samad di ku maanu ku ragal yàlla koo xam si amoon Baye Mor Sylla mi may ñett nee benn bis bi nga xam ne mi ngi ci wéradi gi ca Mbaye Ndiaye am na lu mu ko doon liggéeyaloo joxoon ko ay million am nañu wax juróomi million la dafa waxoon si si Moustapha mii nekk jotaayam tey jii yàlla na fi yàgg te wér daf koo ko lii may Mbaye bu fekkantee juguma ci na nga ko delloowaat Mbaye Ndiaye bu yàlla dogee ma am na ba def li may def loo baax far yàlla suñu borom dogal wéridu wéridu googa ci la Cheikh Abdou Samad wuyu jee borom tabaaraka wa taala sëñ Moustapha mi di ko maandu bi may jaay ñëwee di ko siyaare si bàyyi moom si moom ma nett li nee na da koo di jox ko ko kon ku maandu la di ko waajal di ko yàlla ndax su ragalu yàlla wala maanduwul woon su ko neexee mën na koo def neneen waaye def ko koo jox ba may njaa am tim lool kon ko ragal yàllaa ngoo koo xam ni alal yi àdduna moom Cheikh Abdou Samad jëru la ko woon dara kon ñuy jégalu di saare suñu ustaas bii tee mooy Serigne Cheikh Sall di saare bu baax tamit kilifa yu baax yi nga xam ne bi ngi fi Cheikh Abdourahim ak sëñ Moustapha Diop sëñ Baara Diop suñ mun jaay kii maam yi bàyyi ko fii di jaare sëriñ ma Mor Diop mais di jaare sëriñ Mbacke Diop mi nga xam ne incha allah rabbi mooy war a def waxtaan yi man damay ubbi jotaay bi rek di jaare sëriñ Baye sëriñ Diop di jaare sëriñ Cheikh Diop di jaare sëriñ Sam Diop mi nga xam ni ndeysaan alxuraan ñi nga xam ne jàng nañ ci alxuraan yi ab lim tolloog juróomi téeméeri kaamil ak ñaar fukk ak juróom benn dara jàll ko sëñ Massamba ak si Abdou Samad ak njabootam gi dañ sam jóg mii jiite nekk di bopp jotaayu jamaatu tadaamatu li xidmatul quran ñi ngi siyaare di sàkk jot ni ko mbokk di siyaare seen Seexuna Jóob nga xam ni muy jëm ci jotaay bi di leen baaraax ci jotaay bi nga xam ni ñi ngi wax seen kanam waaye dara waralu ko lu mu ndigal rek di sàkk ngay ñaanal lu baax ba mbokk jëm ñi nga xam ni dañuy liggéeyal Seexul Xadim di liggéeyal sëñ Samba Jóob Samb mi nga xam ni tey lii bu amee ginnaaw yàlla suñu borom suñu ma jub sàmm moo tax di jéggal lu baax di baalaax di ñaan suñu borom boole jéggal mboolem ñaan yi fi ñaan suñu borom nangu ko soto ko ci téew yi yu yu sëñ ma sàmm jub sàmm ak njabootam ko Cheikh Abdou Samad te yàggal fi ñi nga xam ni ñoo ko fi nekkal wa aaxiru da'waanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin yal na yàlla yokki leeram moom ñu di ko xoole sëñ Abdou samat loola tilaanga ju réy la njëkk lu réy la aleyhi salaatu wasalaam dafa waxoon ni man asda ilaykum maarufan fa kaafi uhu man asda ilaykum maarufan fa kaafi'uhu fa in lam tajidu maa yukaafi'uhu fat'u lahu wa ka annahu kaafi'uhu bu ñu leen séddee lu baax waaye waaye njukkal leen te fay lu baax mu mel ni dañ ko ne yow mi yàlla yónni woon du ku luñ de du kuñ defal lu baax mu am lu mu faye mu ne waaye kon nga ñaan ñaan ku ne mën na ko njëkk loolu ñu dugal kër sëriñ Abdou Samad nag moo waral sëriñ bi sant ma ni naa ñëw jottalil ko ay kàdduy sant kàdduy sant donte la bis bi bisub sëñ Massamba Diop Samb la ni nga ko waxe bis bu war a saf sëñ Massamba Diop Samb waaye defe naa ni li ci suñu rakk ji jàllale doy naa yem ndax mel na ni tënk na dunduk ba Massamba gépp tàmbalee na ci ak juddoom ba ne mu gisee sëriñ bi ca saam ba ne mu ko dabee paataar ba ne mu ànde mook Mbàkke Kajoor ba ne yoonu murit taxawee dégg naa mu wax ni keroog bi sëñ bi wooyee mag ñi dajale leen ci ajuma joojee ba ni ala man sahiba nii li taallumi fal yartahil wa man araada ma aradna fal yasir bi sayrina ca kaw la ko jiitu mu ni saafahani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waxaale lii rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi sikk bari na keroog dégg naa wax ko léegi riiba bari na waaye ba cëgg di setul guy ba ba mu woote la mu woote keroog ñu jëkk woote borom dëkk bi ca la bokk muy sëñ Massamba Diop Samb keroog ñu jëkk wuyu ci la bokk dégg naa mu wax ni keroog sëñ Adama Guèye rahmatullah alayhi moo jëkk a jox la joxe loxo sëñ Ibra Sarr Njaañ topp ca sëñ Massamba Diop Samb am topp ca nga tekke ni lan mu ni sëñ ma sëñ Tuubaa daf ko ni Massamba démb la woon du tey moom moom ca Mbàkke Bawol moom moom ca Daaru Salaam keroog ba sëñ Tuubaa di sañ ci Daaru Salaam guddi gëm fa njëkk fanaane ñetti mbalaan la sëñ Tuubaa taqale ñetti ma Masamba la taqale mbalaanum sëñ Masamba Jóob Saam mbalaanum sëñ Masamba Kanni mbalaanum sëñ sëñ Masamba Mbàkke ñetti mbalaan yi la sëñ Tuubaa defub xayma fanaante kon sëñ Masamba yàgg naa ànd ak sëñ Tuubaa moom moom ca Touba moom moom ca Jeen Jolof ba ni sëñ bi demee ci géej gi mu del si waat Daaru Salaam di fa liggéeyal sëñ Touba ba di sëñ bi ñibbisee mu fekk ko Ceyeen ànd ak moom dem gànnaar ba nim ñi gisee ñëw njaareem fan yooyu yëpp moog sëñ Masamba Jóob Saam kon tënk nga lépp fa tabaarakallaahu mu nekkoon koo xam ne nag kum doon sarookaay kum doon sab sëriñ sab xel war naa dal waaye war ngaa góor góorgóorlu nag kuñ ñu kuy sab sëriñ nga ni sëñ ma Sàmba Jóob Sàmb sa xel war naa dal waaye war ngaa góor góorgóorlu li sa xel war a dale mooy sëñ tubaa dafa dalal xelam dalal xelu njabootam ndax sëñ tubaa kum ni ñaan naa yàlla mu defar say mbir ci àddina defar ko àllaaxira lu ci des wa ashalullaha tabaraka wa taala an yarda anka wa an jamihi iyalika daal di teg cab tàmpa ba wallahu ala na naqul wakiil kon loolu war naa daal sa xel li nga war a góorgóorloo mooy sëñ Masamba Diop Samb dafa musta yaas yaafus musta tekki laxasaayam musta wàcc ba ni mu tàggoog sëñ Tuubaa 26 ñëw njaareem ak laxasaayam musu koo tekki da ngeen ba tàyyi ci nettali matt mi mujj a taxanal sëñ sëñ Tuubaa ci njëriñam ba mu koy ba ko sëñ ba mu koy waxi sëñ Tuubaa dafa doon sukkóotu ci aw yat xam nga ni ko kon musta tekki kon war ngaa góor góorgóorlu war ngaa góorgóorlu ci lislaam war a góorgóorlu ci jaamu yàlla war a góorgóorlu ci maandu war a góor góorgóorlu ci xam fi ngay teg sa tànk war a góorgóorlu ci nite ak fulla ak fayda ku yaakaar sëñ ma Masamba Diop Samb rek war ngaa góorgóorlu ci loolu loolu sëñ bi wax na ko du jar ñu ciy sori ndax sëriñ la boo xam ni ku ko yàlla booleel war ngaa sant yàlla ndax kat gaa yàlla yëpp tagg nañ ko dégg naa ci sa wax nga ni sëñ Ibrahima Diop almasari waxoon na ko ni laxat alimal aqwaamu xattal baa'imu bi ann raïsa saami bil haqi qaa'imu koo xam ne bàyyi mi sax xam na ni ci dëgg nga ne picc yeeg ngenaaw yeeg luy dox ak luy dund ak lu xam ak lu xamul lépp xam na ni dëgg ngay taxawee te ki ko wax du tama nituk yàlla la kooku mat naa mat naa sant sant yàlla ci ànd ak moom dem na ba ci biir mu wax ni wa fil hikmi luqmaanun booy nattale xekk may sëñ Masamba Diop Sam mook mook Seydina Luxmaan nga koy nattaleel Seydina Luxmaan alayhi salaatu wasalaam ci ñi ci waxi ñenn ñi euh, fi may daaneele bala maa ñëw ci kàddu sëñ bi euh, sëñ Mat Jaw Faxa ci magi sëñ Tuubaa la bokkoon mooy sultaanul aarifiin daanañ ko booyee aalimu kullu fannin bi mu ñi sëñ Tuubaa dafa fees tel ba kenn attanu dafa waxoon ne li lu ñuy bind wala lu ñuy maas ci asamaan ak suuf mët jëw faa xam na ko waaye bi mu ñëwee ba jàkkaarloog sëñ tubaa ak la ca xew lépp xam na ni fi njariñul àddina ak àlaaxira mi ngi ci sëñ tubaa xadal mu ay minu annal xayri fii yadihi walaw li yow ubbi tadawu ma zalimu loolu la lool la sëñ sëñ sëñ Ibrahima Diop almasri wax euh, dafa am bés ci xam-xam bi ko yàlla may ci ni mu déggee woon arab te jekk ko mooy sëñ mat jaw fax moo waxoon ne yaa saadiyan in kunta tuxta li salsalin fal tahduwan aw tarkaban lil ansali wa ani alladi taxta alxadim bisaatihi wa rabbihi wa bil albihi wan jaljali gis nga baat yooyu mu tegale dafa diggoon arab benn bis ñuy warante barxalit ji ci téere bi sëñ Tuubaa bind tudd ko muqaddimatul xidma ñenn ci mag ñi ne arab la ñenn ñu du arab sëñ mat jaw faxa tëb daan ne du arab ndax man luy arab xam naa ko sëriñ bi baat bi mu bind bu ci juumul it du arab ñuy werante loola ba àgg ca ku tedd ki xaadim rasul sëñ tubaa daan ne lu ngeen wax ñu ne mat jaw faxa weddi na nee na du arab mu ne wax na dëgg baat bi rusu turu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñi dëkke ci juróom-ñaareelu suuf malaayka yi dëkke foofu ñoo koy wooyee ma bind ko fii terale ko ko sëñ ma dafa xat ni bëri daal di lu ma leen waxal nee naa leen lu lu ñuy maas lu ñuy bind xam naa ko sëñ ma sàmba sëñ tubaa dafa maa jël ni ma cëb bux ci géej gi musul li ma may sotti ko di sotti di sotti tooy xet fakum ndox nee sëñ ma sàmba Jóob sàmm ni ko bërit ni ko ma jëw faxa mool di su ko nawe ngemb lu tooy lañu koy nawe mooy la muy gindaale ca jël wa mool di su ko nawe ngemb lu tooy la ñuy nawe mool mooy la muy indaale ci jën wa la muy wàccaate nga xam ni kon sëñ Masamba Diop Samb xikma boobu nga xam ni moom la ko mag ñi seereel lu am la ah, bu loolu jàllee maa ngi guddal sëñ Moustapha nee na mi ngi sant kilifa yi di sant waa dëkk bi rawatina juróom mi nga xam ne moom la yàlla def tey muy sëñ Masamba Diop Samb di sëñ Abdourahim Diop di ko ñaanal sunu borom yokk aw fanam may ko ak wér ba lim yéene liggéeyal sëñ Massamba Diop Sam lépp mu matal ko ci sagoom euh, di ko ñaanal itam képp ku ko ko yéene di sant ay magam yi nekk ci dëkk bi di ay kilifaam di sant njaboot gi ak taalibe yi nga xam ne ak daayira bi nga xam ne ñoom ñoo xalaat bisu tey bii tudde ko waajuram mu sell wa Cheikh Abdou Samad danaa faral di wax ni dafa am jukko bu am solo boo xam ne sëñ bi wax na ko te yàlla bindee woon ko sëñ Abdou Samad muy umariya jikkoy Seydina Omar la sëñ Abdou Samad yoroon lan mooy jikkoy Seydina Omar mooy boo ko gisee di ñitte bi ko yàlla jox ak fulla ji ak raglu gi danga ko ragal ba danga ko yam fa nga ko war a yam waaye boo jaxasoog moom ba jaxasoog moom da nga xam ni kii boo dee nitug dëgg mën nga ko jëme fu ne loolu defe naa ni ñun ñi ñëpp mën nañ koo seere te man nag demawuma ko sëñ Abdou Samad da da dawul tànn dañ ko dawul tànnali xarit du nit koo xam ne da ñëw rek mu tànnal ko xarit ni ko kii saa waay mu waayoo ko de loolu ñëpp mën nañ koo seere nit yi boppam moo koy tànn te du ko tànne ni ko nit ñi tànne léegi naka la ko nit ñi tànne léegi la nga gis koo xam day tànn nit xaritoom moom ngir alal ngir wërsëg kii mën na lii kii defal na ma lii kii kër rus naa ko ngir lii sëñ Samat dawul lekke noonu mu tawaadi la al jilaani al umari la woon daf ko daan dafa la daan xool am lu mu tànn ci yow di ànd yow ci dëgg tànn la noona te jàpp naa ni mën naa ko wax ndax man te ñooña laa bokkoon kum tànnaloon boppam laa ak li may xeeboo di xeeboo di daan ma dénk sekkere yu bari ma daan xam ci moom lu bari tam loolu yàlla ko dogal tey itam du lu ma tànn ngir sama baax wala sama dara daf ma tànn ngir kóllëre ndax nettali ne ma ni sa maam dey mi jur sa baay muy Cheikh Ibrahima sàll ba ma demee Guinée am naa fa juróom-ñaari weer yoo xam ne ci këram laa nekk lu ne defal na ma ko loolu ngor la loolu teraanga la loolu delloo ab cër la ma naa ne ah, kon sëñ bi du sama jëmm la jàpp waaye kulle rek mag nga lay topp mu nekkoon koo xam ne woyof lu moo ko yéege woon ci yàlla woyof lu sëñ samat nga daan romb fii mu toog nga jàpp ni benn waay bu yoroon nag la sàmmi ba ñëw toog ci garab gi di noppal loolaa ko yéege ci yàlla mooy yéegaayam Seydina Abdul Qadir Jaylaani nee na damaa dikk fekk gaa yi di raj raj loo bunt bi jëm ci yàlla mu fees dell kenn mënut a dugg ma ni gees bunt boyof lu kenn nekku fa ma jaar fa jiitu gaa yi ci yàlla ba mu demee abdu suñu borom ni ko abdul xaadir jaylaani ana noo def ba jëkk gaa yi mu ne dama leen a bàyyi ci buntub réylu bàyyi leen ci buntub bëgg daraja bàyyi leen ci bunt buntub wut wut xaalis ak alal ak tur ma geesu buntub tawaadu ak soo feelu ma jaar fa agsi ci yow bàyyi leen fa ñuy xat-xatlu mu ne ko danaa la defal lu ma def lul kenn danaa la may sama bunt bi saa yu ko ne koŋ-koŋ ni may yaa rabbi man la yaa yaa abdi jilaani abdul xaadir moom képp fott ci wàll yi ngay gis koo xam ne nee na bis tàgge nañ ko tàgge nañ ñu ne ko moo ne faatu na mu ni munta ne ndax bu doon faatu ruugi tàgguma kon bu ngeen ne faatu na ruugi tàgguguma ma ni munta ne ñu ne ko wirifeel mu wirifa yónnee ñu ne ko ay ay la yéwén Abdul Xaadir Jeylaani taaliba bu faatu mu ni déet munta mu dem ba tiimal koo xam ne faatu na mu ni malikul mawti war na ma daal di suñu ba daal di def tasaro faatam soppi ko dab malikul mawti nangul nangu nangu béjjën ba mu yoroon Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani ne keroog keroog da ngaa dekki ci maqaamam te woyoful ko amee sëñ Abdul sëñ Abdou Samad nag jaar foofu nekkoon koo xam ne ni nga ko waxee dara buur woon bëtam lu dul lu dëgg boo yoree sa dëgg ñëw ci moom xam ni fekk fa Abdou Samad jullit bu mat bu maandu bu jàng bu ragal yàlla boo yoree say caaxaan dikk fekk ko muy ay Omar yu gu mat Seydina Omarul mu Xataab Seydina Omarul mu Xataab dafa tàngoon ba xale yi buñ ko séenee senet bi dañuy tiit ña doon naan sàngara ak ña doon tox ak ña doon def lépp buñ ko séenee dañuy daw làqu benn bis benn waay yor bitilu sàngara di naan si naa moon ni mu ragloo woon nga xam ne dama koy misaal sëñ Abdou Samad mu seen ñu ne ko tey nga dee Omar a ngi ñëw mu daal di jël butéelu sàngara bi daal di roof ci ci ci ron tubéy jinde ci yàlla Omar daagal daagal ni ñëw ba ni ko eh li nga yoroon la mu doon mu ne ko ah, dara mu ne ko seenu mënoon ngar dara xale bi di pat-pati daal ni yàlla maa ngi lay ñaan ci diggante bii bu ma Omar bu ma rusloo mukk ci kanam Omar boo ma ruslawul ci kanam Omar waat naa ni dootu man taan naan sàngara ci sa dara jëw yàlla da Omar ne ko indi li nga yor loo yor mu ne ko meew mu ne ko génneel ma gis mu daal di génne butéel bi daal di koy yëngal muy meew mu ne rus na maa ñaan yàlla ba may ma may naan te sàngara Seydina Omar noon la mel sëñ Abdou Samad itam boo musaana ñëw ci penc fekk ko wala nga fekk ko ci jotaayam loolu rek ngay gis ci moom boo yoree sa dëgg ak sa fulla ak sa fayda ak sa lu wér wax joo xam ne ju wér la boo ko waxee fekk fa muy jullit bu maanu bu woyof lu bu mën a wax ak yow waaye boo yoree dara ci caaxaan taxaw jàkkaar ne wala koo nax ba ñëwee da nga xam ne da nga ko fekk ab omariya yàlla ko yàlla yokki leer kon sëñ sëñ sëñ Moussa nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm ngi leen di ñaanal yàlla ak yonent bi sëñ ma sàmba Diop Sam mu ngeen bokk lépp li ngeen ci jublu yal na ngeen ci am lu kawe seen jort lépp li ngeen ci jublu yal na awe la ngeen ci am lu seen jort ndax nee na lu war a am kat bu amee du tee ñu sant lu war a am la ndax sëñ sëñ Massa sëñ Abdou Samad sëñ ma ko jur te sëñ Massamba ngeen di sant kon ngeen tudd ko ko lu war a am la waaye boo defee li la war ba noppi sant war na ca kon nee na mi ngi leen di sant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem. mook ay rakkam yëpp yu mu bokkal li tàmbalee sëñ baara mii ba ci sëñ baara male ba ci sëñ abdourahim mii yéen ñëpp mi ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal lu ci jub ci yàlla la lu ci dëng ci xam-xam bu gàtt la ñu ngi koy jégglu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ak mbuus la ko sun borom sol xutbu yi ñëw muy seet wali yu ñëw muy toq xawsu yu ñëw muy seet ak a rogalaat ak yeneen tey bi sëñ tubaa ne cëpp mbuus ma sun borom da ko ni ngafeet këpp ko ci sëñ tubaa sëriñ Tuubaa tooy xëpp lam yëlëb moo dal ci sëriñ Masamba Diop Samb moo topp ñi barke sëriñ Tuubaa yàlla sunu borom guddal sa fan ginnaaw loolu mu mel ni ñi nga xam ne teewaatoon nañ ci jotaay bi muy koo xam ne boo ko gisee muy dem bu ko laaj ci lan la ne ci liggéeyal maam Cerno Ibra Fati Mbàkke ndaamal dëru la ne muy sëriñ Moodu Njaay kiimaan ñu koy siyaaree bu baax di rafetlu taxawaayam di ko wax ni de moom na sëriñ la Serigne Touba digaloon Serigne Massamba Diop Samb ak maam Thierno ma nga cee dox aw waaram la mu man ci digganteem ak borom képp tax ak Serigne Khalil Mbacke ñu koy sant bu baax di profité di ci ñaanal ki nga xam si ni mooy Serigne Abdourahmane sunu borom guddal fanam ca wéral ko ndax sëriñ Mor. nit man nga kaa jox lu ne nangu ko ba mu des alxuraan alxuraan moom foo ne yool ba moom yàlla na ko sun borom yéene diw day dem ca moom sëriñ Abdou Samad sëriñ Abdou Samad bisam bii nga xam ne si ni moom lañ ko tuddee waaye daayira sant sëriñ Massamba Diop Samb di ko amal fii ci dëkk bii sëriñ Abdourahmane Mbacke moom sëriñ Abdou Khoudous Mbacke moom maam Thierno Ibrahima Fouti Mbacke ndaamal dëru moom sëriñ Tuubaa yi ni woon ca mu dem ndar ñëw ca wuutewul ak Serigne Touba ca la Serigne Touba bëggoon kooku nee naa leen soxna Faat Isa Diop mooy way juróom Serigne Kokki Njaga Isa Diop mooy way juróom Ahmadou Fa Xujja Diop Kokki Matar Ndumbe Samba Ayib ma dem ba wuntu wuntu mu jënd di xajaase baj tur ma jógee arsif bu dagga doonoonu naaram daa doon ngor barke Serigne Touba Serigne Abdourahmane Mbacke nu mu def jàng ñeenti téeméeri kaamil ngir Daaru Diop gi ngir bisub Daaru Diop bi ngir bisub Serigne Abdou Samad Diop bi ma ne damaa bëgg ku fi yàlla na gudd ndax danoo bëgg ñun waa Daaru Jóob ginnaaw loolu ñuy continuer ci li nga xam ne mooy liggéey. ma di leen nuyu itam ci turu daayiratul mubaarak daayira bi nga xam ni moo lëkkale sëti sëriñ Massamba Diop Samb yi ak taalibe yi nu ngi leen di nuyu ci turu bu baax a baax di rafetlu itam liggéey bi nga xam ne yéen nga koy ànd ak ñun ci liggéeyu sëñ ma Massamba Diop bii ci daayiratul mubaarak ñu ngi ci sant dëkk bi ak njaboot gi yépp ci taxawaay bi nga xamee ni ñu ngi koy taxawu ci daayira mubaarak ndax gis na ni saa yoo xamee ne jàpp ni daayira bi eh, suñu àggee ci bis bi ñoom ñi ñëpp kenn ku ci ne dana ub sa kër bàyyi sa ay yitte ànd ak ñun dem liggéey la sëriñ Massamba Diop ba liggéey bi jeex ñu dellu siwaat fii ci seen yitte looloo nag lu gis la lu gëm la luñ xam la waaye nag loolu dara waralu ko lu may danoo xam ni lépp liggéeyal sëñ ma Massamba Diop la te xam na ni itam eh, képp ku liggéeyal sëñ bi rek da nga jot ci ak ak ak payam loolu itam tax na itam nuy soññ itam mboolem njaboot gi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi di góor ak jigéen nu gën a góor góorgóorluwaat ci daayira mubaarak bi bu baax ndax daayira la boo xamee ni dafay nekkal njabootuk sëñ ma Massamba Diop sàmb gépp bu ma nee dafay nekkal njabootuk sëñ ma sàmb jóob gi fépp foo xamante ni si sëriñ bi am na fa dëkk rek daayira bi am na yéene jàpp ca liggéey boobu ngir jëmmi sëñ ma Massamba kon nag ñuy waa daayira bi ñoom jekk nañ ci fépp fu ni liggéey le sëñ Massamba Diop jekk nañ ci taxawu loola ànd ci ak ñoom ca liggéey boobee ba tax na kon ñu ngi am na yàlla dugal na sax ren euh, bëgg nañu gën a yaatalaat liggéey bi ci Touba ndax tuubaa am nañ fa fukki section ak ñeent waaye day mel ni fukki section ak juróom la ndax Daaru Diop moom dañ koy boole ci section yi tuubaa yi kon man nees na ni am nañ ko fukki section ak juróom bi ko juróomil muy daari jóg yàlla dogal na ci semaine bii nu jëm ni incha allah dees na toppaat fi euh, fi nga xam ne mooy section yi gën caa yaatalaat liggéeyub mubaarak gën cee soññiwaat bokk yi ak xele yi ñoom ñëpp nu gën a ànd liggéey bi yow bu ñu defee loolu ba wër section yi nekk Touba ba fukki section yooyu ak ñeent jeex incha allah danañ yegg si fii ci Daara Jóob itam waxtaan ak bokk yi gën fee yaatalaat liggéey bi nu ànd liggéeyal sëriñ bi suñ borom dogal na itam euh, fan yee ca ginnaaw euh, ànd nañu woon ak sëñ Alaaji Jóob ak euh, sëñ Abdoulahat mu sëriñ Thierno ak sëñ Alaaji mu bàyyi sëriñ ñu ànd dem ci sëriñ bi ñu doon sàkku ndigal ci jumaa joo xam ne dañ ko war a liggéey fii ci dëkk bi bi nga xamee ni itam ànd nañ dem ci sëñ ba eh, la ca sëñ ba waxit mooy tànk yi ngeen dox eh, gisaguma yenn tànk yu ko gën a rafet ñor na ma yitteel na ma joxe ci itam ndigal wax ni loolu moom jox naa leen ci ndigal waaye nag dëgg la man maay seen kilifa waaye may eh, dama am kilifa goo xamee ni dama bëgg bu ma yàlla indee tuubaa ci jàmm muy ki fi nekkal Serigne Touba ma dem ba àgg ci moom laaj ko ci ndigal euh, sàkku ci ak ñaan soo ko defee nu mën a commencé kon liggéey bi kon nag loolu moom lu lu mu ànd la lépp loo xamee ni lu koy doxale itam fas na yéene ànd ci ak ñun ca loola wax na itam bu ñu demee ba ba yàlla dogal mu am ci ndigal ci sëriñ bi fas na yéene itam ndigal loolee baatam moo ci jiitu incha allah loola itam bi nga xamee ne waa daairatul mubaarak la kàddu yooyu jóge na ci sëriñ bi cen xam ne lépp itam liggéeyal sëriñ Massamba Diop la lool itam am na euh, liggéey boo xamee ni waa daa daairatul mubaarak taxawe nan fas nañ ku yéene taxawe ci jumaa ji nga xam ne moom lañ yéene liggéey Daaru mooy li nga xamee ni moom lañ fi dese woon yàlla dogal am nañ yéene euh, sumb daara ju ñu war a taxawal moom itam Daaru Saam euh, ci taxawaayu mubaarak waaye bi nga xamee ni ndigal li itam ñëw na ñu xam ni Daaru Jóob mooy Daaru Saam Daaru Saam itam mooy Daaru Jóob kon nag Moubarak moom dafay taxaw taxawaayu fépp foo xam ne ñu ngi fay liggéeyal Serigne Massamba Diop Moubarak am na yi yéene jàpp ca loola ànd kook ñoom ba liggéey boobee jeex loola itam moo waral Moubarak foog foog na 1 million 500 jàppalee ko Daara Diop ci jumaa ji nga xame ni moom lañ ci fas yéene taxaw loolu itam Moubarak da ko tàmbalee rek incha allah bis boo xamee ni yàlla dogal na tàmbalee nañ ko 1 million 500 bi moom mi ngi fi. moo daayiratul mubaarak jox na ko da daara Jóob ngir ñu tàmbalee ko ci léegi jumaa yi daara Jóob ji fas nañ yéene itam loolu ab tàmbali lay doon waaye fas nañ yéene fu liggéey bi ta toll rek nu ànd ak ñoom taxa toll ca taxawaay boobe loolee nag dara wërale ko lu may euh, téeméeri daayira ak fukk ak ñeent yi nga xamee ni ñu ngi bootu ci daayiratul mubaarak loole yëpp ñoom seen jëf la ba tax na comme loolu am na nag ñu ngi sàkku itam. nun ñëpp rek nu gën a góorgóorluwaat ci daairatul mubaarak gën ci taxaw bu baax xam ne lépp lu ci def itam fas nañ yéene fu ñuy sumbal ma Masamba Diop ab liggéey rek am nañ yéene jàpp a ah, jàpp ca loola ànd ak ñoom ca taxawaay booba kon nag nuy ñaan itam yéen mbooloo mi fi ne ak bokk yi ak taalibe yi yëpp ngeen ñaanalu ba liggéey boobu nga xam ne ñu ngi ko na ànd di ko liggéeyal sëriñ bi nu daje cee ngërëmal sëriñ bi bi barakati rasulillahi barakati cheikh al xadim jasakallahu xayran fa ajruka alallah sëriñ Sam kàddu yi rafet na ci ànd na ak pësëf soo ñëwaat nga mbooloo mépp ñuy ñaan suñu borom dëgërël la ca dëgëral sëriñ bi ci liggéey bi muy liggéeyal sëriñ ma Massamba Diop Sam barki sëriñ Touba jërëjëf kon dañuy jox sëriñ bi rek muy sëriñ Baara Diop mu daal ñaanal mbooloo mi. bu ko defee ñu daal di continuer liggéey bi incha allah. alhamdulilahi rabbil alamin rahmaan rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim xayril maxduubi alayhim wala diidi yéen mbooloo mi man Baare Diop moom Baye Serigne Diop maa ngi leen di ñaanal ci dara ji Sëñ Tuubaa maa ngi leen di ñaanal sëñ ci barke sëñ Tuubaa tànk yi ngeen di dox nga xare kanam la jëm bañ jëm gannaaw maa ngi leen ci ñaanal yàlla dool leen ci wërsëg dool leen ci lu bëgg a def yàlla ngeen ko def ca dara bañ koo yàq nag dara ji sëñ Tuubaa wa taw wa taw binaa wa xawinaa wa kunnanaa wa abdanaa usnal xitaami rabbana wa saliyan ala nabi alayhi wa suxli bii ajata kulli muslimin li ngeen aajowoo lépp yàlla na ko yàlla def ci kàttanu Sëñ Tuubaa barke sëñ Masamba Jóob jeex na